tey dañ fi ñëwoon euh, euh, Ndiayène Pendaaw ak démbu Potou ak ceeb di liggéey ak euh, entrepreneur yi nga xamante ne ñu ngi yëngu si wàllum horticulture lépp di mbayum ak njaay soble pomme pomme de terre ak carotte le ministre du commerce Nous avons ñëw cette euh, plateforme qui nous gis avec ginnaaw yi nga euh, partenaire Bay USAID euh, Nafoore Warsaji financé ak DER bi nga une ligne de financement de 500 millions de francs CFA pour commercialisation et la transformation Nous avons bu nous ñu ngi bëgg producteurs yi nekk Euh, pour que lépp luy dem si wàllum stockage hangar stockage ak chambre froide pour que seen soble yi pomme de terre yi ak carotte yi bañ a nëb euh, pour que ñu mun ko jaay à tout moment si euh, année bi loolu ñu ngi siy liggéey te bu soobee yàlla fi ay weer yu néew dinañ ko tàmbali fii fii si Podor mais tamit si Potou ba Kayar bu soobee yàlla.